Pape kii nag moom nee na dafay laaj ci lan moom mooy ngëneelu jàng alxuraan ak dugal sa doom daara mu jàng alxuraan wala dugal ko fu ñu ko mën a dugal rek mu jàng alxuraan. mu ni jàng alxuraan ak dugal sa doom euh, daara lan moo ci njëriñam yóbbu sa doom daara. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi man maa ko fi duma maa ngi furux furux yi rek. daf ni woon iqra'ul qur'aan. jàng leen alxuraan jàng leen alxuraan. Mhm. te Iqra dégg naa moo njëkk a wàcc. moom la njëkk wàcc moom la njëkk a jàngal yeneen moo njëkk a wàcc alaaji pap mhm. mu ni fa innahu mhm. yati yowma alqiyaamati shafian li ashaabihi maanaa pap mooy sol robbu avocat di ko peledeel digganteem ak boroomam macha allah. alquran ci boppam mooy nekk avocat wam. alquranu yashfaaani alquranu wa siyaamu. lil abdi yowmal qiyaam. ëllëg yowmal qiyaam avocat bu lay del sa digganteeg sa boroom pour yàlla oyofal say dossier mbaa mu jëggal la say bàkkaar jàngkatu alquran moo koy am. bu jàngi alquran la ndax sunu dossier yu diis yi. wilaay bu nu awul avocat bu baax. yàlla dina wax ak nun de kon ku yebbu jàng alxuraan ak aas boo mënti am. léegi nag pap moo tax boo amee sa doom. Mhm. da koy dénk yàlla. Mhm. te pour nga dénk ko yàlla mooy da koy dugal mu jàng alxuraan. Mhm. parce que pap alxuraan bénéfice bi nekk ci jàng alxuraan amul ci dara ki yaa. iqra. te nga wax bi mais pap imaginez tey. kii jàng alxuraan. pour wax la bénéfice bi muy gañee ci tiyaaba. li muy am ci tiyaaba. tey par exemple Pape bismillahi rahmaani rahim. bu ma la waxoon tiyaaba bi ci nekk mënoo koo calculer. da nga foog ni jàng ma alxuraan. xool ma nii rek. xool ma nii xam nga lu teg si bi wax Pape lu mu man qaraa xarfan min kitaabillahi falahu alxasanatu walxasanatu bi asri amsaaliha laa aqulu alif laam miim xarf walakin alifun xarf laamun xarf miimun xarf nee na booy jàng alquran xaraf boo tudd fukki tiyaaba lañ lay bindal ci saase benn xaraf bu ne boo nee bismi baa gi fukki tiyaaba la siin gi fukki tiyaaba la miim gi fukki tiyaaba la ah mooy lettre pour pour pour ñuy comprendre ko mooy par lettre. par lettre maanaam du fay par mot. déedéet mais lettre sax day fay. yàlla nee na sooy jàng alquran. par lettre lañ lay fay. B bi day fay I bi day fay es bi day fay supposons mu nekkoon en français. waa léegi bis mi xam nga ñaata boo ko doon calculer tey par exemple yor sa machine calcul bismi mi képp fanweeri tiyaaba ngay am. eh waay kon xaaral ma gën a jàng bis mi bismillahi c'est parce que nee na yàlla suy fay par xaraf lay fay. par lettre. te xaraf bu ne fukk la ciy fay. eh moo mën a fay nag ay salaire du yéex de. yenn temps leen di yéex a fay seen salaire yi dugg <laughs> ay fu ñu jëm ak nguur gi du ñu wax ci loolu <laughs> ah baax na di gis ku démissionné léegi dem toog beneen dëkk bàkk Serigne Touba. waaw na ñu ngi wax rek. fu nu dem ak nguur gi <laughs> ah yàlla faykat bi nag nee na par lettre la lay fay ci bis mi ji xaraf bu ne dala ci fay fukk àggalil foofu neex na yaaw saas <laughs> e fu ñu dem ak ñi man <laughs> eh, bu ma yoo góor awa yàlla baax na par xaaj lañ ñuy fay léegi xaaj am na lu ñu ma dugalal démb ay ñun fu ñu jëm de sonko bari doole bu ñu yógoon ba ñëpp yi way ñu way ndoog ñëpp rek sonko sonko bari doole oustaz waxal yàlla baax na yàlla mi mën a fay nee na par araf la lay fay araf gu ne fukk man am na lu ñu ma dugalal démb illaahi mais nga dul xam noo koy def moo baax sélection gi Aly Ndiaye barki borom Tuubaa bu ma kenn fayul maak maak Youssou ba keroog may sàngoo suuf mais dugalal nañ ma démb dara Pape dugalal nañ la <laughs> ay ay lii de moo tax boo absenté kenn jotatul demande d'explication maa ngi ay weer laa toog du ma liggéey kenn du ma demande foo nekkoon <laughs> dugal nañ la yow <laughs> àdduna bett nga ma coon sekk daa mënoon a nag mais quand même oustaz da nga nekkoon ci point bu important ni nga ma dajjee mosoo mosoo ma ko yow man damaa neex <laughs> yuusu ci boppam maa ngi koy dajj nii barki Serigne tubaa yàlla li mu wax dafa am solo neena na par araf lay fayaate par lettre. <laughs> yaa ngi dégg Pape. dugalal nañ la dara de man am na lu ma dugalee <laughs> démb. àdduna dafa mën a waraate. billaahi wari neen la. <laughs> yàlla baax na mais quand yàlla par araf lay fay yaa oustaz. mais yàlla. yàlla par xaraf lay fay. boo waxee benn benn xaraf. mu fay la fukk. bismi bismillahi rahmaani rahimi. Hmm. alhamdulilahi rabbil alamin ba saar wi jeex ngay compter xaraf par xaraf xaraf bu nekk fukk. fukk macha léegi nag imagineel yow. Hmm. nga fexe ba alquran rëcc na la ci sa ndaw jàngoo ko. Eh, yàlla may la doom. problème la. mi la la rawoon yow ba nga cay toll dabu ko ci sa doom. yàlla moo baax nag. nga bañ a perte dix perte la si teg. man ne bu subaa ma yóbbu sama am nga place sa daara ji sama ñetti doom yaa nga ci kër ga toog rek di jouer ps ak làkku tubaab suba j'amène mes enfants donc daara importance bi ci nekk ndekk ñun sax xamuñu ko. moo tax jàng alquran am solo alaaj mm-hmm, mm-hmm. même soo yóbbuwul sa doom daara. wutal ku koy jàngal wutal ku koy jàngal ci biir kër gi. Mm-hmm. muy am cours. di jël bind mm-hmm. di gën a avancé ci alquran mm-hmm. ndax Seydi Haj Malik sama sëriñ dafa wax ni mm-hmm. inna alqurana huwa almizanu taarifu minhu ma hawayta min al aswaqi wa sadabi Seydi Haj Malik nee na ni ñuy nattee nit ku bëgg yonent bi sax mooy nan la mel ci alquran kon Pape fexe ba sa doom jàng alquran am na solo kiya dafay fay mu ngoog donc ñu dem ci troisième question bi alors euh, kii nag moom nee na dafa Eva Tra mbaa dugalal nañ la dara ma am na lu ñu ma avance démb de <laughs>